soo si amee loo ci yokk wala loo xam ne di nga ko ci laaj boo ñu woowee 77 510 13 95 incha allah am looy laajte dañ la ko mën a leeral ci kàttanu yàlla. bu ko defee ñu nekkoon nag ci benn tomb di ko waxtaanee mooy wax lu lu dëgg ci weeru koor wax lu lu dëgg nag musul dagan fenn rawatee na ci weeru koor wa tabaarakallaahu kon nag loolu tomb boobu leen nekkoon di si waxtaan di ñaan yàlla dafa ñu si dégg topp. liñ koy ubbee rek mooy aaya bi yàlla wax ci alquran inna allaha laa yahdi man huwa musrifun kasaab yàlla nee na du yàlla nee na man duma jubal fenkat ak koo xam ne fen mooy sa métier tabaaraka la du ma la jubal am na ñoo xam ne ci fen leen tabax seeni kër am ñoo xam ne ci fen leen am seeni oto am ñoo xam ne ci fen am leen fen leen am seen i bien te loolu yëpp tabaaraka laaw dakunut yàlla wax ci alquran ne wala taqafu ma laysa laka bil ilm inna sama wal basara wal fuad kullu ulaayka kaana anu masula yàlla subhaanahu wa taala nee na maa ngi lay ñaan bu def dara loo xam ne amoo ci benn xam xam-xam wala taqfu maa laysa laka bil ilmin bul wax bul wax dara loo xamut fexe looy wax nanga ko xam xam nga lan mooy fenam fen mooy saxal mooy saxal mooy widdi lu am wala saxal lu amut loolu mooy wax lu dëgg gis nga sax bo demee ci alquran wala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam téere gis nga bis bo waxé ne billaahi suba dem mbour ngana billahi subadina suba dem mbour so demul mbour l'islam dalay wara daan da nga wara kafara ñetti fan da nga war wor ñetti fan tabarakallah ci billahi dina dem mbour te do dem mbour wala nga wor fukki fan wala nga wala nga leel fukki miskin ah kon tabarakallah lu mu si lu mu siy rek moy nit ki balay wax na xam lu mi wax bo ne billahi suba dina dem Dakar wala billahi suba kay li ma la yore dinaa la ko jox non dina la ko jox billahi suba dina la ko jox bo xasse wax billahi suba dina la ko jox bu suba jotey joxoko rek da nga wara kafara ngiñ gogule da nga wara lehal fukki miskin wala nga wor ñetti fan ndax billahi gi nga wax wala nga ne billahi suba dina dem Dakar yooyu yëpp nañ ko bàyyi xel l'islam da koy tare waaw waaye nag boo ne barki nangam loolu du géñ barki sëñ tubaak barki sëñ fàlloog barki sëñ babacar yooyu du géñ waaye boo ne billaahi wala nga ne wallaahi wala tallaahi dinaa la def dinaa la defal nangam soo ko defal rek l'islam da lay teg ay daal lu loolu nag nga wax nag incha allahu su fekkee indi nga incha allahu te mooy sett nga incha allahu boobaa dara du la ci war incha allah lu muy tekki mooy bu neexee yàlla xëy na kon li nga bëggoon a def neexut yàlla moo tax boo indee charte bi rek ne insha allah te itam mayuñ la nga wax ko ba waaj a dem nga da ko incha allah déedéet maanaam fi nga waxee rek booy noppi na incha allah waaw suba kay bi suba kay billaahi la indil li ma li ma la aboon incha allahu waaye boo xaaree ba mu neex la nga dogo incha allahu tabaarakallah bu baax du mën a jàpp kon fi nga waxee baat bi rek fi ngay fi ngay ñëwee géñu moo tax yàlla wax na ko ci alquraanul karim bi gaa yi ñëwee laaj ko waa ashaabul kahfi mooy nekkoon ci xunt mi yonent bi sallallahu alayhi wasallam leen dem leen bu subaa ma tontu leen gaa yi ñëw yonent bi na demaa leen ba suba gaa yi ñëwaat fekk yonent yi informé boppam yàlla moo koy jox wahyu waaye yàlla téye wahyu bi nag yàlla téye wahyu na pat di ko déglu gaa yi ñëw mun a dem leen ba suba loolu ñaari njàngale mu si nekk yonent bi sallallahu yàlla def ko loon jàngal waaye daf loon jàngal xeetam yàlla xamal ko na bul waxati mukk lu jëm suba te wax insha allah wala taqul lana li sayin ini failun dalika xadan bul waxati dara lu jëm suba loolu da ngaa wax insha allah ndax wax mu yegg yàlla la neex nga jóg yëgg sa kër yàlla la neex kon lay wax lu jëm suba rek fa tabaarakallaa na fekk nga boole ci insha allahu rabbi kon moo tax alquran nee na wala taqfu ma laysa laka bil ilman ndax inna samaa te mooy nopp yi ngiy déggee wal bashara bët yi nga yàlla jox wal fuaada xol bi ngay xalaatee yàlla ne kulu ulaayka kaana anu masoola benn bu nekk yàlla dana ko laaj benn bu nekk yàlla dana ko laaj kon tabaarakallaa moo tax kon euh, fen daal baaxut bari na léegi nu ma ko waxee léegi suñ suñ jamono ji fa tabaarakallaaw da dangay gis koo xam ne day fan day fenn feeñ bañ fa bañ bañ nommé ko directeur am koo xam day fen fañ ban ban takkal ko ndomay tànk bari na ci réew mi am ñoo xam ne fen moo tax ñu defal leen ñu def leen directeur am ñoo xam ne rambaaj moo tax ñu jox leen dafa leen DG defe naa la tudd am ñoo xam ne fen moo tax bañ takkalee sax garaatu ministre fa tabaarakallaa maanaam di fen ba ba nobay la ay garaat loolu musiba la pourtant yow musiba la musiba bu rëy rëy rëy dañu koy def ndam nag waaw fen bañ yëgati jox la nga jàpp na sa liggéey ndey la fekk na sa sa torotaan ndey la kay doo kay du sa liggéey ndey mukk la dina waaw fen bañ jox la kat kat laa ilaha illallah muhammadu rasul te ak bëri ci réew mi bëri na fi torop torop torop tabaraka la te loolu la mbokk yi tabaraka la bu mu ci mën a doon baaxoo dafa xaaraam nañ ko moytundu bu baax a baax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne abi hurayrata radiallahu taala anhu moo ko solo mu ne ayatul munafiqina salaasa maanaam jikko yi tegte leen kii naafiq la nee na ñett la waaw wa in sala wa saama wa saama annahu muslimun wa isa kasaba wa isa waada alafa wa isan tumina xaan tabaarakallaa nee na ñetti jikko yi nga xam ne day màndargaal nit na ko yow naa féq nga nee na ñett la wa in sala donte julli na wa saama donte sama mu dogu la waaye ñetti jikko yi benn yi mu ci yow mooy lan isaa adasa kasaba saa boo waxtaanee nar am ñoo xam ne lu ñu dégg yokku ci ilee ku ñu wàññi ko dañ ci yokk am ñoo xam lu ñu dégg rek tabaarakala yokku ci ilee ñu wàññi waa dañu yokk waaw kon gis nga kooku itam am na jikko ci naafiq ak kan isaa adasa kasaba wa isan tumina xaan koo xam ne boo ko wooloo ba dénk ko sa secret mu wuruj la am na koo xam ne boo ko dénkee sa secret tabaarakalla booy génn bunt kër gi mu ne diw de ñëwoon na fi lii de mooy soxlaam waaw lii de looloon def waaye waa ndeysaan fekk yow da ngaa ñëwoon jàpp ne mooy sa xarit nga ñëw dénk ko sa secret ne ko lii daal sa booy ah jaaxal na ma trop bëggoon naa dem nga aidé ma ci lan mooy sa xalaat bañ solution nga ci am booy génn néeg bi sa waay yàkkam naa téléphone am waaw na ko sa waay de jaaxle na de ñëw na fi de am na lu ma wax de tabaarak gis nga ko ah pour pourtant daf la woon ne bu ko kenn yëg waaye buy génn bunt kër ga jël nga sa téléphone message kenn nga bind message écrit wala vocal sa waaye da ñëw nouvelle jaaxle na moo tax mu ñëw fi tabarak nga jàpp ne du dara fekk nag yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne na am nga ci li nga xam ne mooy jikko naa fekk benn waaw sant wisa waada axalafa ak koo xam ne saa bu la joxe rendi foosé waaw am na koo xam ne dafa dem sax ba léegi dafa nekk feebaru Sénégal yëpp waaw joxe rendez-vous moom maanaam mat matal rendez-vous moom mënuñ ko waaw programme boo dem bu la joxee sax nag na huit heures lay commencé jàppal ne onze heures lay commencé dem nañ ba nit ñi miinee ko waaw dañoo dem miin miin ko te fekk dafa xaram d'accord parce que li nga bind sa carte mooy neuf heures fexeel ba neuf heures ku ñëw fekk la fa waaw léegi rek loolu moom tabaarakallaahu yaxu alquran moom nasaraan ci ñoo ko jëfee. waaw nasaara nasaraan si moom tabaarakala ñu respecté rendez-vous lañu te rendez na nag jullit moo ko war a gën a respecté ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na su fekkee yow nekkoo di koo xam ne da ngay mën a respecté rendez-vous jàppal ne am nga jikko ci naafeq ndax ki nga waxal ba mu fas mu toog di la xaar heure bi mu la waxoon ñëwoo wala yow heure bi nga war a ñëw ñëwoo yàqal nga ko lu bari yàqal nga ko lu bari ko tabaarakala kon loolu nañ ko bàyyi xel beneen bi den man woy sax xaas ma faajara wala koo xam ne boo xuloo moom tabaarakala mu sosal la bari na ñoo xam ne su ngeen xuloo lépp lu garaaw lu ne mu sosal la ko te fekk nag moom xamu ci dara tabaarakala mu sosal la yaa fi def nangam yaa fi def nangam day la ba bari te fekk na mu xamu ci dara boo waxee mu ne dafa sosal ma sosal ko rek waaw tabaaraka moo tax loolu amul njëriñ moo tax am na benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale ci jàngale bu rëy benn waaye dafa ñëw fekk abou Aboubacar Saddiq radiyallahu taala anhu yonent baa ngi toog ak Aboubacar Saddiq tabaaraka yonent baa ngi toog Aboubacar Saddiq ak saaba yi waa ji wax a wax wax ba lu ñaaw lu ne mu wax Aboubacar Saddiq lu ñaaw lu ne mu wax Aboubacar Saddiq lu ñaaw lu nekk mu wax Aboubacar Saddiq Aboubacar Saddiq yonent bi de muuñ rek. walaay di muuñ rek di muuñ rek bi mu ne ba sonn nag Aboubacar daal di fayee ko tontu bi mu tontoor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg jóg dem. sa Saddiq dab ko na ko yaa rasulallah ah kii de mu may xas di ma wax lu nekk ngay muuñ man ma tontu ko rek tabaarakallaahu nga jóg dem mu ne ko bi bi mu lay wax malaaka maa ngi taxaw di la tontul bi nga tontuloo sa bopp rek la malaaka mi dem seytaane ñëw toog kon tabaarakallaahu kon bu nit di xuloo yow bëgg laa dépasé wax la loo xam ne du sa jikko yow noppee rek bëgg a wax lu nekk lu nekkul jikkoom kon moo tax yonent bi ne na way sax xaal sama faajara tabaarakalla kon bu ko defee ñu ngi ñaan yàlla musal ñu ci jikkoo naafeq yooyu euh, tabaarakalla yàlla musal ñu ci musal suñu njaboot waaye musal si mboolem soppee xarit yëpp waaqiru daxwaana anil hamdulillahi rabbil alamin salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh